maire yeeg paa yeeg ñëpp a ci gis seen bopp xale yi jamono 2 point 0 yi 3 point 0 yi parce que liñ fiy waxtaanee dafa am solo mën ngeen ñu yéen ngi suivre en même temps ci live bi ci Facebook bi hashtag bi sunu net la comme ni ko Pape see defee di ko jaajëfal démb moo joxee réponse bu baax bi ci euh, Matar Ba ba pare teg ci livre waaw li mu bind li mu xam. ci ah, moo tax ñee tamit jox ko connexion internet un mois. na ko def na ay recherche oui loolu lañ ci bëgg parce que lañ bëgg gars yi def tuuti recherche. Mhm. Euh, du ñu ñuy jàngale mais fàttaliku ñi fi nekkoon. wala ñi fi nekk ba léegi seen jaar-jaar dafa baax côté bu positif bi dafa baax aussi ñu koy wane surtout ci histoire du Sénégal wala ci ñoo xamante ni ba tey. Mhm. yal yàlla guddal seen fan ñi ngi fi ba tey loolu am na solo leneen li mooy euh, jaajëfal bu baax aussi euh, ñi nga xamante ni ñooy internet yi bi ñu utiliser nag démb tey gis naa ni dafa gën a yéeg. suñu hashtag bi euh, dafa gën a yéeg mooy hashtag sunu net bi di leen remercier euh, pour euh, ni ngeen tabee li nga xamante ne mooy seen émission li ci biir internet wala ëttu internet comme ni ngeen ko tuddeewaatee donc nous voulons toujours des cœurs et vous nous en offrez toujours et vous mhm. êtes aussi au rendez-vous parce que ce qui fait la force de l'émission mooy seen interaction ak interactivité bi am entre ñun ak yéen ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy seetaan maire yi ci lañ bokk. Mhm. bàyyi ci lañ bokk maire yi tamit dañuy gis ñu naan ñu man tamit dama bëgg dugg ci yor sama téléphone di dugg ci internet bi di seetaan man leen mais da ngeen yem ci télé yi <laughs> yéen xamoo leen photo xamoo leen li ñuy téye téléphone ñenn ñi laay wax de. <laughs> ñenn ñi waa ñenn ñi am na maire yi nga xam ne sont ils sont hyper connectés. point 10 3 point 0 lañu. mais am na maire yi nga xam ne xoolal vidéo yi. Mhm. xamuñu photo xàmmeewuñu vidéo ñu seetaan <laughs> moom tax man toogee fee maa ngi nii. kan jël nit ñi man toogee fee la ba may doog. léegi nii la ko jël ah, xanaa. waa kañ la ma ko. ñoom ñu leen def dañ doon snap sama ñoom yaay la yow tamit ñii la ñu mel. waaw gisoo mu naan ko doo ma jël kañ nga ma jël photo. gis nga xàmmeewuñu photo yi vidéo yi <laughs> te nii lañ ñemee téléphone nag. la may fàttali dafa am ñoo xamante ne mooy suñu tonton yeeg suñu papa yi yenn saa yi mhm. bu ñuy photo au lieu ñu jël caméra bi téye ko en face dañ koy tiim donc <laughs> tu as l'impression seen kanam yi dafay <laughs> mais 60 ans yi nii la <laughs> ngay tooñ nii la ñuy def gis lii yëpp day génn boo leen di jëlee parfois nga gis si sax ñenn ñi ay personnalité am. Ah. Mhm. dañ jël ay live surtout ci période pandémie bi nii. ñuy jël jël ay mhm. xale ñu ko a maîtriser ëllëg ñu woo leen expliquer ah, bëgg a wane defal nañ suñu bopp bëgg a wane ne ñoom tamit dañoo bokk. <laughs> di leen jaajëfal ñoom ñëpp yéen ñi ñuy seetaan di jaajëfal maire yeeg paa yeeg ndaw ñi ñoom ñëpp a ñuy suivre gis nañ démb suñu kilifa yi di ñu woo téléphone di ñu encourage bu baax ci émission bi jaajëfal nañ leen waaye tamit kenn du xale jigéen ñi de ah, ah waaw waaw xale jigéen ñi tey si yéen laay ñëw. parce mhm. que euh, vidéo bi sax suñu benn internet moo ñu ko yónnee euh, en même temps sama frère la mhm. donc euh, dañ doon doon tooñ ndax nee na ñun. Mhm. jigéen ñi bu ñu wéetee. xam nga yéen nee nañ da ngeen di jouer play wala ngeen di jouer football. mais ñun bu ñu wéetee nii la ñuy def. seetaan leen. c'est vrai que am na ñu ci bari nag doo leen am loo leen def de mais da téye seen téléphone. di fotow ah, man nag lii kon lii moom d'accord ma ko léegi man dama bëgg interdire ci wax. nii daanaka nii ngay def yow. yow man du ma def nii ah yow tamit kii waaye kii amul fit nag. man su ma wéetee maag maag sama bopp man damay nelaw. mais lii 499 photos nga ñu envoyé. jamais de la vie. amul musul am. Eh. mais daal bëgg naa internet yi wax ñu. Eh. ndax ñun jigéen ñi en tout cas. les filles prenez aussi seen défense. Mhm. wax leen ñu ndax ñun bu ñu weetee nii la ñuy def. may xaar commentaire yi maa xaar na xale yu góor yi wax na xale yu jigéen yi wax. ndax débat la fa hashtag bi sunu net la ñu ngi xaar seen ay commentaire ci sunu page officielle bu euh, télévision Futur Média boo leen demee Facebook def TFM di ngeen gis logo bi muy page officielle bi boo leen demee Twitter di ngeen def hashtag bi sunu net dinañ ko gis ngeen dem YouTube boo leen defee hashtag sunu net dinañ gis Instagram fépp foo leen dem ci réseaux sociaux yi dinañ ko gis. Mhm. leneen li mooy image du jour. waaw image du jour ba léegi ci euh, xale yi jigéen yi laay laay des mais damay dugg ci biir euh, couple yi. Mhm. donc euh, xam nga ñun dañuy faral di ñu jiñ naan dañoo bëri bagage moo xam yére moo xam dàll ba ci douche bi donc ma daal di gis image bi ma ne xaaral ma may leen ko. si étagère douche yi est-ce que yow sa bos nii la mel. loolu góor ne xam nga bariwuñu ay kii saabu rek doy na wala leneen mais soo leen <laughs> butéel yi yàqu yeeg pour doo leen sànni bagage lépp ngi ci biir. <laughs> non li pourtant nag booy seet. parfum yi jeex yi <laughs> sax da ngeen di mais pourquoi doo leen sànni. mais lii nii lu ci bëri après si yéen lay ñëwaat. parce que yenn saa suñu produit lañ leen di jàpp di leen utiliser di leen defaral ay masque ak yooyu quand même. Ah, ñun de gis nga ñun simple. <coughs> benn bouteille saabu jeex na. moo taxoon ma ne ma indi ko su ko defee tey xale yu góor yi dinañ kontaan. c'est mm-hmm. ba ci armoire sax pareil. baax na ci lii yëpp yéen ñu koy proposé wax nañ ko émission bi Social TV la. Mm-hmm. dañuy partagé ndox ak yéen yéen yi ngeen di proposé hashtag bi sunu net dañuy gis lépp dajale ko tànn ci yenn partagé ndox ak yéen commenté ko ak ñu ak yéen ñoo ci bokk yam mu nekk li xew ci réseaux sociaux yi dañuy boole utile ak agréable. tey dinañ ñëw ci sujet bu am solo. Mm-hmm. Euh, ku ko jege ku génn àddina ku nekkoon ci réseaux sociaux yi muy Facebook muy Twitter muy Instagram nan la ñuy def ak kontom bi gannaaw bu mu génnee àddina ci kanam dinañ ci ñëw indi ci tontu. ñu ci bari dañuy doon poser question boobu. Mhm. te duñu wax sans l'avis spécialiste wax nañ ko ci émission bi la bokk utile la ñuy boole ak agréable. effectivement utile la ñuy boole ak agréable dinañ si waxtaan euh, bu ci kanamee avec l'aide social manager. Euh, mhm. boo xamante ne moom tamit euh, xam-xamam nàcc na ci loolu. Mhm. mais balaa boobu rek am na beneen image boo xamante ne tamit bëgg naa la ko baaxee. baaxee ko internet yi. mooy bii nii ngay gis ni gis nga bagage yi. lii la. non de xoolal déjà ah. structure bagage bi ci kaw oto bi na ko rek. organiser na ko ba mu yëpp taxaw mais ndaw bari nañu. moo tax nag ñu ne kii la personne bii nga xamante ne moo ranger objet yi. Mhm. mën na régler suñu problème du pays en un seul mois. ndax lii. ku ko mën a ranger nii. problème mu dëkk bi war nga kaa mën a régler ba mu ne kocc. du ma ni déedéet lii de du ma ni déedéet moom lii day nekk na image bu yéeme ah. kay mooy est-ce que voiture bi dina déplacé wu. loolu tamit benn problème parce que charge bi ci kaw yi moom. Eh. macha allah mais en tout cas daal c'était une image boo xamante ne suñu internautes yi. Mhm. Euh, ils nous ont proposé ça. ñu ne euh, pourquoi pas voilà ñu génnee ko won leen ko. di leen jaajëfal maa ngi suivre seen message yi ci euh, page officielle bu télévision Futur Média gis nañ commentaires yi gis nañ kër yi gis nañ message yi jot nañu lépp ñu ngi gis lépp en ten réel parfois ñu jékki-jékki tànn benn commentaire partagé ko daal di koy def ci télé bi au bas de l'écran ngeen gis ko. Mhm. wane ni bi c'est interactive ñoo ci bokk yam te ñun am na équipe loolu daf ci am solo internet nag bu ñu koy wax dafa bari lool lu mu ëmb moo tax chaque jour ñu proposer leen lii di li xew ci biir internet bi lundi ba jeudi chaque jour ñu ñëw indi ay thèmes yu am solo yoo xam ni dossiers yu mat yoo xam ni te parfois c'est compliqué parfois c'est trop simple di permettre yéen suñu yaay yi wala yéen suñu papa yi wala yéen ndaw ñi nga xamante ni maîtriser leen trop trop trop lii di réseaux sociaux yeeg internet yeeg téléphone portable ngeen mën ci jàng dara ndaxte léegi yëf yi dafa jaxasoo te toujours ci côté bu négatif bi rek la wax ci réseaux sociaux yi. looloo tax nag ñun ñu daal di ñëw ci li nga xamante moo di euh, côté positif bi ndaxte euh, internet du rek lu bon. Mm-hmm. mais am na tamit lu baax te mën nañ si ce qui fait que ñun ñëpp ñooy gagné on est euh, une sorte de euh, on va dire de point ou bien de relais entre les jeunes et l'autre génération donc euh, waaw loolu donc mi ngi noonu te li nga wax léegi dafa am solo mhm. ndaxte actuel tey lu ñu bëgg a waxtaanee mooy ñi nga xamante ne dañu am compte Facebook ba pare nekkatuñu di dund mhm. parce que ñun ñëpp presque am nañu compte Facebook ñu amul compte Facebook taxu ñoo bëree torop mhm. mais qu'est-ce que le compte devient mhm. une fois que nit boobu dundatul mhm. est-ce que dañ koy est-ce que nii est-ce que naa mhm. léegi nag dem nañu seeti euh, monsieur Diouf nga xamante ne moom social manager la dile euh, est dans le digital ñu daal di ko poser la question mu daal di ñu indil euh, quelques réponses par rapport ak ça dudd àdduna seen compte yooyu lan lay nekki ëllëg boo xoolee avant 2015 loolu indi woon na bëri si si toile bi mais 2015 mu ñëwee marque indi na benn système bi nga xamante ni mu ngi ko tuddee compte de commémoration les comptes de commémoration lu mu lay permettre yow de ton vivant nga choisir ki nga xamante ni à travers ces deux options nga choisir ki nga xamante ni yow mun nga ko léguer sa compte wala soit nga choisir ñu supprimer sa compte définitivement boo fi nekkatul léegi loolu pour nga def ko c'est simple c'est pas compliqué da dem paramètre Facebook boo demee paramètre di nga gis ni fu ñuy bindal fu ñu lay bindal transformation de votre compte en compte de commémoration donc une fois que boo duggee fa dina deux options option bi mooy di choisir ki nga xamante ni moom ngay léguer sa compte Facebook donc fu mu lay bindal nga ajouter un nom boo choisir tur boobu noonu automatiquement Facebook da koy toutes les informations nécessaires ngir ëllëg ba fi nekkul dina mën a am accès change euh, photo profil affaire yooyu noonu genre mais du mën a tontu say message en même temps du mën a supprimer say amis loolu du ko mën a def. benn aussi tamit mën nga choisir ñu supprimer sa compte Facebook définitivement si Facebook loolu lu la koy permettre Facebook xam ko donc boo fi nekkatul Facebook say amis donc mën nañ signaler. Facebook ne carrément nekkatoo fi donc mu ñoom seen algorithme seen affaire yooyu noonu ñu càmbar xool ni carrément c'est avéré. nga xamante ni ñoom dañuy am compte. ñun ñëpp am nañu mbokk wala ñu am ku ñu jege lool ku ñu koo xamante dafa génn àddina nekkoon Facebook. Mhm. wala nekkoon ci réseaux sociaux yi nan la ñuy def ak kontam moom la kii doon waxtaanee te nekk na lu am solo. waaw moom la Pape Amadou doon waxtaanee mu wax lu am solo nag parce que affaire bi dafa mel ni daanaka ay leg la. Mhm. parce que tu as deux choix soit euh, euh, de ton vivant nii da ngay dem ci paramètre bi nga paramétrer sa compte pour que euh, yow boo devenir ne ñu supprimer ko bu boobaa disant que la personne euh, bi nga xamante ne mooy détenteur du compte donc personne bi moom compte bi dundatul mhm. su ko defee Facebook supprimer ko mhm. ou bien yow euh, ci sa dund toujours mhm. comme mu ngi mel ni rek comme ngay def euh, léeg mooy ngay def hérite kii nu mu tuddati non non beneen bi waaye mooy booy laisser sa papier noonu rek booy signer moo bi def waa testament voilà booy def sa testament da ngay dem ci sa paramètre nga daal di ne man su ma deewee je lègue moo compte à Mamadou Ndiaye par exemple loolu la mémoraux am na nag euh, ñu yëgal que ne am na ay comptes yoo xamante ne day daal di disparaître mm. des espaces publics de Facebook donc euh, day nekk des comptes en souvenir de mm-hmm. et à côté de la photo de profit dañ fay def benn genre fleur mm-hmm. loolu boo leen ko gisee ça veut dire que compte nit kooku kooku dundatul mm-hmm. mais ñu ñuy yëgal que ne si Facebook moom mooy euh, paradoxalement le plus grand cimetière numérique parce que près de 8000 personnes décédées ñu ñu ngi am seen compte actif dans le monde te ci loolu. Mhm. je pense bien dañ ci mosoon euh, interpeller Marc. waaw ñu créé fi benn débat bu rëy. Mhm. je pense il a deux ans derrière mu créé woon fi parce que mhm. ba léegi ñu ciy commencé bàyyi xel parce que vraiment ñëpp da gis ku actif sérieusement. koo xamante ku ci nekk am na ko la jege. koo xam dafa nekkoon ku génn àddina. après doo xam nan lay def ak compte am. déjà bu nit ñi di def rest in comme ni ñu koy def bi ñuy def rip dañ koy ci dañ léegi euh, marque daal di jóg si loolu daal di indi deux options mhm. benn bi mooy sa xarit yi ñoom ñooy sina signaler page bi mhm. daal di wax ne que ne yow nekkatoo de ce maanaam gaañu nga mhm. wala beneen bi yow sa wàllu boppam balaa ngaa euh, doo xam kañ ngay kañ ngay bien sûr mais étant donné ku ci nekk am nga Facebook voilà de ton vivant nga daal di dugg ci paramètres yi def ne je lègue mon compte à diw maanaam yow euh, bis boo nekkatul de ce monde sa compte kooku voilà kooku nga koy bàyyil moom moo koy daal di jël am nga fooy dugg pour def ko ci paramètres paramètres boo demee ci paramètres yi euh, dina ko fa nekk parce que instant bi ñu ngi xayma ñu ngi ne. Mhm. Euh, compte fictif maanaam compte personne fantôme yi. Mhm. Euh, su ñu bàyyi fii ba cinquante ans dina tolloo ak nombre de comptes de personnes vivantes. Eh. parce que dafa am ay comptes fantômes. am ay comptes yoo xamante ni nit ñi dañuy perdre seen mot de passe. Mhm. ñu bàyyi ko fa dem créer waat beneen compte. sans compter ñi nga xamante ne nag ñoom dañuy gaañu bàyyi noonu. compte bàyyi noonu voilà. mu nekk lu am solo lu ñu leen di indil di leen ko proposer bis bu nekk parfois ñuy def la leen benn dossier bu simple. Mhm. boo xam ne ñun ñëpp da koy dund cas bi indi tey. mu nekk lu am solo loo xam ne ñun ñëpp dund nañ ko ku ci nekk am nga ku la jege koo xamante ni dafa génn àddina doo xam nooy def ak euh, compte Facebook am. Mhm. koo xamante ni ku actif la woon ci mhm. réseaux sociaux yi. wala ci réseau social surtout bii di Facebook. Euh, mairie li mu expliqué simple la paramètre dem ngeen xool bu baax euh, am na foo xamante ne dinañ di nga fa mën a jaar ba mën a. jël sa compte jox ko keneen. waaw mais lépp ci kaw loolu tamit yow boo defee sa lekk boobu mhm. kooku récupérer sa compte après mhm. doo du am pouvoir euh, euh, dugg ci say messenger wala wala wala dem ci say photo di modifier mhm. moom mooy moom compte bi mais du ci am pouvoir benn action maanaam du mën a agir en ton compte. sa doom nga koy jox rek mais wóolu beneen débat ngi ñëw parce que tamit ba jox ko. ah supprimer rek. gënu yéeme na loolu nañ ci ñëwaat <laughs> nañ ci ñëwaat non yéeme na ne koy wóolu tamit ba jox ko noonu sa compte yi. <laughs> wala sa jëkkër wala sa jabar. mais ah, sa doo ko jox sa jabar. waaw mais ba tey. da nga xam ba xam ndax kuy njëkk si. Ah, la <laughs> kuy la kuy la. kan mooy njëkk de kenn dafa xam kan mooy. waaw <laughs> mais léegi ku ci nekk rek mooy eri mooy testament defal sa testament nga jox ko sa jabar moom it mu jox la bosam rek. testament numérique la. <laughs> waaw testament numérique la. ñu jëm ak internet léegi ñu egsi réseaux sociaux yi. donc nekk lu yéeme mais sujet bi am na solo jaajëfal euh, ki doon intervenir noonu. Pape Amadou Diouf di Pape Amadou Diouf di ko jaajëfal tamit ci waxtaan bi explication yi leer na ñun tamit. Euh, seen xalaat mën ngeen ko def ci hashtag bi sunu net mu nekk lu am solo loo xamante ni tamit euh, tey indi nañ ko ci. te euh, loolu am na solo ñu tamit ni lañ fi nekkee di leen wan di leen expliquer lu simple loo xam ni chaque jour yéen a koy confronter ay ci réseaux sociaux yi wala ci internet bi ñu ñëw indi ci leeral heure bu baax bi comme ni ñu koy waxee gis naa déjà ngeen di commenter ci sunu page officielle bu télévision Futurs Médias lii lan la mooy wala kii kan la mooy rubrique bi ñëpp di xaar kii lañ waxoon mairie. waaw kii na ku ne. waaw vraiment am na ñu trouvé nag bari nañu. mais am na ñoo mhm. xam ne dañ doon jàdd gauche complètement. temps yi moom affaire yu métti la ñu indi. waaw nooy màtt ay njaay yaa ngi màtt de. mais dafa yomb trop bu ñu indee kenn rek ñëpp ne nii la ñëpp àndandoo masandoo na kii la <laughs> mais démb kii moom saf na sàpp waaw kii nag euh, moom la ñu tuddee moom moo moo tudd Kéba mbay mhm. donc euh, mu nekk benn juriste euh, sénégalais mhm. né le 5 août 1924 à Kaolack et mhm. décédé à l'âge de 82 ans le 11 janvier 2007 kii nag ngeen di gis moom la ñuy wax juge Kéba Mbaye moom moo moom moo jur ki nga xamante ne moo di Cheikh Tidiane mbay directeur général bu Sonatel ak banquier boobu ak kii Abdoul Mbaye oh. monsieur Abdoul Mbaye mooy ancien premier ministre du Sénégal donc kii mooy seen kii mooy seen pape moom tamit mu daal di marqué li nga xam xamante ne moo di euh, histoire u mhm. euh, Sénégal mhm. parce que euh, ñu ngi ñuy yëgal ne que ne moom il a occupé les plus hautes fonctions de la magistrature sénégalaise mhm. ak aussi le mouvement olympique parce que nit ñi xamuñu ko woon mais c'était un passionné de golf oui bien sûr il fut l'un des cinq membres du groupe d'experts internationaux chargés d'enquêter en sur les crimes commis à Yougoslavie par le conseil de sécurité de l'ONU bari ci nag ay postes yi nga xam ne yoroon na ko bokk ci Kéba Mbaye koo xamante ni génn na àddina wax nañ ko ci atum 2007 ci janvier euh, la woon di ko fàttaliku et nekk koo xamante kilifa la histoire Sénégal bu bokk ci bind nekkoon bindkat it li mu bind bari mhm. waaye lépp lu mu bind nag lettre bi mu bindoon Abdoul Mbaye mhm. lettre ouverte à mon kooku dañ koy conseil euh, internautes yi ngeen koy tàppe ci internet Google bi di ko lire mhm, baax na ci conseil àddina baax na ci ndaw boo xamante ni da a bokk bëgg jom ci sa àddina mais surtout booy dund ak sa waajur. Mhm. di xool conseil yi baax na nekk na lu am solo jaajafal nañ leen yéen ñëpp yéen ñëpp a trouvé moo tax mënuñu joxe keneen. waaw loolu moom dëgg la moom suba la ñuy indi beneen wax benn kenn ku gagné wala. ku ñu ku ñu tànn. tey nag kii lañ indi jigéen nag. waaw ah yow xam nga man chaque jour ñuy wax góor. jigéen di ah, équilibré vraiment. sànq loolu ma ne ko temps yii yëpp ay góor lañu ñu indi tey nag nañ teg kii. Mhm. waaw. te kii moom ndeysaan man waaw kii moom. kii moom ah posé question bi rek waxal ci jigéen. na nañu gars yi wax te dama bëgg euh, ku jigéen trouvé ko waaw wax leen ñu nag kii ku mu doon. Hmm. waaw du ma jox a benn indice déedéet waaw su ma sañoon jigéen trouvé ko mais daal kii laa leen indil tey. Ah, baax na waaw. yi daal baax na mhm. baax na ñi ngi xaar ñi ngi xaar ñi ngi xaar réponse bi suba mhm. ñu somme la comme ni ñu def ak euh, bu Kéba Mbaye mu nekk lu am solo ñu ci bég bari na ñu dem gis naa ku ne ku ci nekk di fàttaliku comme ni mu koy waxee ni ñuy indee yenn nit yi mhm, bari nañ ci fàttaliku fàttaliku un peu histoire am baax na mais tey jaay suñu grand yi doon yëgu ñoom Tafa Dioum ñoom Chérif ak Ndoye dégg ma leen kenn Ndoye Bane ñoom ngi ne teg may indi leen jigéen rek ñoom yëpp ñu teg saa yoo indee kenn ñoom ñoo njëkk wax ne diw kii la ani app tey de kenn waxul app laay waxul day de lii bëgg naa ko mu saf parfois tuuti. léegi ma léegi xaaral damay dem ci internet yi tànn ñoo indi leen kenn dootul. jaajëf jaajëf léegi euh, am na kii kan la lii lan la démb lii lañu waxoon lii lan la. waaw lii lii moom. lii de fokkat yëpp xam nañ ko. waaw waaw dawkat yeeg. waaw waaw mën a tooñ ñi. Lanspear la mhm. am na ku ñu décortiquer ba décortiquer ñu bant bi ni mu tudd. la internet defal nañu cours de physique chimie. dugg ko science dugg dugg science. gis nañ message bi dégg nga Lanspear rek lañ ko xamee ñun. wala picc. <laughs> lance pierre rek mais gis nañ message yëpp <laughs> simple rek. waaw lance pierre déedéet ko def simple dafa def ay recherche am yow tamit dem ba si science bi wax la bant bi fi mu jógee ak bant bi léegi lu mu devenir. à ah. terre ah. jaajëfal nañ leen lance la euh, am na beneen vidéo. Mm-hmm. bu ñu indi woon démb. waaw dañ doon wax vidéo bi ni voilà lii lan la. waaw lii nag tax na ñëpp doon réagir. nag mhm. ñëpp vraiment. ñu nga doon tëb di dal. ku nekk di ci joxe sa xalaat surtout ñu dëkk ci région yi ku ne naan lii man Kaffrine laa dëkk kii naan man Tamba laa dëkk kii naan man Thiès laa dëkk. Mhm. bu déggoo kii lu mu wax nee lii mbool la. mbool la tudd. Mhm. waaw bu dugub bi ñoree lañ koy lañ koy defar te nee dafay am dangay ngay am benn affaire boo koy xëccee mu tudd mboolaan. moom nga koy dindee dugub bi ci mbool ci euh, période saison de saison de pluie bien sûr. dem ko doon wax. bi lañ koy comme ci période yii nii mhm. dañuy dem mbool mi mhm. image yooyu nag ñu ngi ko jëlee ca Pire di remercier bu baax Ndoy Baat ak équipe am bi moo nee nañu si toolam lañ ko si toolam ba lañ ko doon defee jaajëfal mhm. la la lii lay ku tamit Ndiaye lan moo texte bi <laughs> yow dama gëm nekk ne yow da nga bëgg en fait suñu bopp yi di metti non mais lii texte la quoi dafa leer texte la waaw bët yi baax yi dafa leer texte la ah waaw ah. waaw waaw gis naa gis naa pourtant gis naa de. moo tax ñu ne la boo xoolee. <laughs> xoolal regarder dafa am observer am. léegi <laughs> boo xoolee di nga gis dégg leen ñoom ab réalisateur bi tur bi ko. waaw bindal la ñu lii lan la. ñu xaar <laughs> euh, réponse ñu ngi leen di xaar donc si vous le trouvez vous êtes un champion comme on l'a di metti nag wala seen yuur yi. <laughs> baax na euh, loolu nii la nii la wax nañ ko dañ koy dañuy boole utile ak agréable ñuy jeu di leen wan di expliquer wane ay images yu am solo ngeen ciy bëgg ñun tamit ñu ciy bëgg mais tamit du ñu jóg ci di leen jox information yu baax yi snap tey dafa changé tey dama xëy rek xam na man snapper bu mag la waaw tey dama gis yëf yi dafa changé waaw tey nag bi ñu yeewoo ñu si bëri gis nañ seen euh, seen habillage u snap daal di changé comme ni mhm. ngeen koy gisee nii mhm. ñoom xam naa ñu ngi si guerre bi TikTok Instagram Facebook donc ñoom tamit ko a xaw a comme temps xaw a fàtte tuuti. Mhm. parce que quand même Snap a un peu perdu euh, nombre d'utilisateurs actifs yi. Mhm. ñu daal di commencer li ñuy naan euh, revaloriser seen image. Mhm. def présentation yu bees. gis ngeen ko nii c'est beaucoup plus attractif euh, euh localisation bi message yi photo bi personnes yi et tout ça. mais aussi lens yi aussi ils ont réactualisé li nga xamante ne mooy lens yi. di ngeen mën a lancer ay nu ñu tudd ay défis. par exemple man mën naa créer benn lens lancer le défi ne la defal sa lens bopp genre yooyu et un peu plus d' interaction en fait ci li nga xamante ne moo di application bi di Snapchat mais mhm. dafay am ay xew-xewal. waaw dafa am boo xam ne xam nga day ñu ne wax Viber. Mhm. dafay am moment bu muy xew mais après nag dafay dee nag. day dee. snap mi ci yoon bi la jëm. non looloo tax instant yi ñoom tamit. a a ngi mhm. noonu la. benn durée de vie même Facebook mii ñuy waxtaanee nii tey. non Facebook moom instant il de vie mais euh, gëm naa ne bu beneen euh, euh, réseau social. amee encore un peu plus de puissance rek dina dem mais enfin mhm. plus sa mooy que ne a Instagram même moom wax na ko nag moom mhm. Marc gis naa ko ci benn interview muy expliquer que ne xam na ni yëf yi day toll ci benn moment après day wàcc toute chose a une durée de fin jeex na jaajëfal nañ leen 26 minutes de non stop ñu ñëw bégal leen euh, ñu jàng ensemble waaw du ma ne ñu jàngale mais ñu jàng ensemble. Mm-hmm. ñu wan leen ay imaginaire ngay reetaan euh, li xew ci internet bi la altine ba alxames tey moom mercredi la suba la ñuy fas yéene jàllale dernier numéro de la semaine jaajëfal ñi ñuy seetaan jaajëfal internet yi. di la jaajëfal yow tamit di jaajëfal suñu téléspectateur ak suñu internet yi. merci ñeneen sa dafa rafet. sama la maa ngi gis commentaire yi nii. <laughs> <laughs> merci ak ni ko tagalee nii ci bopp bi. waaw turban la kontaan na. turban la bii moom maa ko def sama sama yëfi bopp la. mais monsieur Diouf kontaan na. ah. <laughs> ay yow bul tax mu gën a sourire waay. tàggatool na. <laughs> waaw kon ñu ngi leen di jot di daje euh, suba incha allah ci seen dernier numéro de la semaine te xaar leen ko ndax les perles du web euh, seront présents. Mhm. toujours pile à l'heure 13h30 heure bu baax bi bu leen ko fàtte. restez scotché ci internet bi émission bi day continuer question yi ñu fi posé réponse yi ñu ngi koy xaar hashtag bi sunu net la ñu bàyyi leen ak programme yu télévision Futurs Médias wareef mi ngi ci ginnaaw di waajal euh, Tata Eva ak équipe am ñoom Ndoye Bane ak ñoom Mami Wareef ñoom ñëpp ngi ñu ngi ci ginnaaw di waajal toujours di leen bégal yéen téléspectateurs yu télévision Futurs Médias

CSB Samsung Brand Shop nekk fii ci cité kër góor gi moo leen doon may li xew ci biir internet bi